Nous avons rencontré l'association Asfo, l'association ñu wax regroupé les professionnels de formation dans le domaine de la sécurité et de la sûreté ñu ñëw fi tey yàlla def euh, ñu permettre ñu ñu jël des jeunes de la commune yoo xam ne ñu ngi ci biir métier bi indi leen fi la formation bi ah bi vraiment dañu parce que nous avons vu gis métiers métier sécurité ak sûreté du am doole du toll la neex mais da am compétences des compétences bi ci la parce que nous avons ñu gis ñuy def formation bi ay adjudant de gendarmerie et et adjudant chef tey kii nga président il est connu au niveau international je pense que tey bu wax garde rapproché ñoom parce que bu ñuy tëdd un cursus ne accompagné président Abdoulaye Wad, le président Abdou le président Macky Sall dañuy wax ne ñii ñu amal tey c'est de grosses factures te loolu tey euh, kontaante la ci biir commune de Kaolack donc ñu ñëw war leen accompagner gën a poursuivre partenariat bi de sorte que mu nekk une formation beaucoup plus large képp jeune bi nga xam bëgg nga yëngu parce que il faut le dire métier boo xam ne léegi dafa nekk en vogue bari dañu bëgg dugg ci métier bobu mais aussi amna importance nit bala ngay dugg ci métier nga am compétence yo xamne mo la fay jëlé té ñoom ñi tay wa compétence yo les indi wa li ñu mën leen jàppale ñu permettre leen d'abord euh ñu dugg ci biir commune bi en profondeur aussi permettre leen ñoom xam-xam bi nga xamne indi nañ ko té vraiment moy lo xamne daf fi manqué ñu jël ko mettre à la disposition des jeunes de cette commune là maintenant ñun aussi en tant que commune dañ leen di accompagner parce que qui dit formation dit que dinañ am yu soxla y a des besoins qui sont là par exemple exemple, euh, la salle de, euh, de la mairie, nous allons mettre à la disposition pour la formation de demain. Mais nous faisons parce que nous avons un accompagnement financier, nous avons un accompagnement qui est partenariat qui est à notre disposition. Nous devons le faire parce que nous avons ligne fi indi maa ngi koy wax ci début bi daf ñu yokk xam-xam dañu xam ne léegi pour sécurité ak yooyu du nit xale dafa war a am doole dafa war a toll nu ko neex rek mu ne dèjà damay nekk cadre rapproché ñoom jàngal nañu tey ak adjudant yi fi gis vraiment muy nekk de renommée parce que ñi nga xam ne ñoo war kaaraange nga xam reconnaître la yéen yow jël xale yooyu di lañ tàggat bokk la ki nga xam ne dafa toog ba mu yàgg rek dem jënd mbubu militaire sol ko wala ñëw lu que léegi léegi da ngay dem ci manifestation mais xale yi war a def sécurité bi yow ñoo lay gaañ ñoom ñoo lay ñoo lay maltraité en fait alors que ñoom ñoo war a assurer sa sécurité tey boo gisee lu la jaaxal ci ñoom nga waroon dem mais boo jógee dem ci ñoom niñ lay kii rek ngay xam ne am na formation bu des ci ñoom